ñaanal suñu muntaxaa yàlla na fi yàgg lool te di ñaan maanaam te ñu ànd kook moom ndax maanaam màggal gi moom macha allah. yow sëñ bi yow sa liggéey ci màggal gi yow la mooy sa taxawaay ci màggal gi yow. waaw man liggéey sëñ Tuubaa euh, liggéey sëñ Tuubaa maanaam si wàllu fees bi nekk sama kër sëriñ maanaam di taxaw gàtt yi ak nag yi lépp rek di ko sant si Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul ndax sëriñ Tuubaa moom moo am ku ne am na électricien am na lépp kër sëñ Tuubaa la ngay dugg lépp daj fa. ndax moom moom moom jaam mais yow fees bi yow da nga ko yàgg di def da nga ko yàgg da yàgg di def maanaam ba ñëw fii di ko ñëw fii nii di ko mottali wala boog magal ba nga magal rek ngay nekk fees. man nag 96 laa nekk Seras fees dama ko tar bi ba mu ñëwee sama ko Serigne gis ñu ko fay def ma ne ko Mbàkke lii moom mun naa ko féete woon ngir suñ Touba ndax dama ko jàng 96 laa fa nekk. ba quatre-vingt-quinze si laa quitté Seras léegi alhamdulilah am na sama liggéey boobu kon jërëjëf suñu Tuubaa mais nag teewul nag fees mi nag moom heure bu ñëwee sama kër sëriñ du ma ko bokk kenn maa koy taxaw. yow yow dong daal yow ndax loolu dafa bokk sama liggéey si sëriñ Tuubaa ndax kër ga am na électricien am na menuisier am na lépp man moom wàllu fees bi maa koy jaayante ngir sëriñ Tuubaa yaakaaruma si dara dañu ngërëmal suñu Tuuba yow fu mu nekk nii yow ay ñaata façon gàtt yow ngay a ngay fees par bés wala ci màgg ak yow sooy xayma ngay fees yow ñaata la waaw si màggal gi dinaa fees ay xar man maa ngi ñëw alxames ba tey tooguma xar yi nag yi waaw te fu mu ne nii bu subaa bu neexee yàlla dañu dañ ciy nekkaat waaw di teral gan yi rek ndax sëñ Tuubaa noonu la ko santaane ndax dafa ne ginaar ba si gëléem ba pare mu ne génn leen néegi jox gan yi te maanaam waa Tuubaa ñu ngi appliqué loolu te fonk nañ ko ñoom seen premier objectif mooy na na na na gan ñi lekk na gan ñi am fu ñu tëdd ñoom lijjanti ñu seen bopp sax loolu moom seen jikko. jërëjëf sëñ bi ñu fàttali ñu tur bi. man El Hadj Faye laa tudd taaliba sëñ Xaadim Moustapha Abdoul Aziz taaliba sëñ Baar.